Yes, we are here in Banjul to find out how the National Development Plan is being implemented. And that is why today we'll have a in special interview with Dahaba of MPP to find out whether the National Development Plan is being implemented or not. Because there are accusations being stated that the National Development Plan is not working, but others are also saying the National Development Plan is fully in progress. Today we invite Dahaba of MPP to discuss about the National Development Plan. You're welcome, sir. waaw sëñ bi jërëjëf tey lu ñu war a waxtaanee mooy national development plan am 2016 bu nguur gi Adama Barrow ñëwee si pawa def nañ fi benn téere bu ñu ooyee national development plan mu omba lépp lu nga ma ne nguur gi loolu leen fas yéene liggéey yow loolu ñu mën a wax si national development plan bi. ah Omar euh, maa ngi laa gërëm bu baax di la sant bu baax euh, di la wax ne euh, olof Njaay daf ne weddi gis bokkul. tey national development plan bi nga wax ni soo seetloo tey si biir Banjul gis nga Banjul ni meloon ak Banjul ni mel léegi tey ñu ngi Fitzerald gis ngeen Fitzerald macha allah ni mel nii liggéey baa ngee dem gay construction ñoo amee ah, contrat bi te doomi réew mi lañ dama ne his excellency president Adama baro development plan am bi du Banjul rek dafa Umba Gambia be Gambia yep daj tay bo se Fizeral, Fizeral ni mel ak fizaral ni mel last year dafa outé ni Gude ak beccëk xolal fizaral tali concrete Bangi Ni wédi di gis bokul nga ñew Allen Street te dama ne li nga gis ni liggéey bi paree de tali bii am naa sax dañ koo dañoo dañoo lal godorong dañoo lal godorong street light si ñëwaguñ gis nga courant yi nga gis ni yëpp ah ñu cross nii yëpp dafa dem si suuf kon dama ne ah, tubaab lum xees xees xees bàyyee ko xeesaayam président Baro da ne bugguma ko loolu is up to waaye ne liggéeyut loolu kenn du ko wax weddi nag gis bokkut gisal ngeen seen boppa tey suñ jógee fii dinañ am ay doxantu yoo xam ne dinañ ko def ñu dugg biir Allen Street fii euh, kaay leen ñu ñëw Allen Street bu ko defee ngeen gis man dama dee bëgg mu leer te nay leer waaw parce amon na jamono jo xamne Banjul do ñemeñ jok jóg waxtu bi sax di dox ngir xet yu bon tilim gi sobe bi lu xalat si lu tilim mu ngi ci pax yi waaye tay da nga dox bir Banjul do gis pax pax yep ko fa neñ len yëpp amna na kubéer fi taxaw ni da nga fa gis pax uyuma fiñ taxaw ni gis nga fi pax do fi gis pax parce que pax ko fa neñ ko bo demé Europe sax li mo fa nek tali karo mo fa nek Europe. duma la bëgg a rek moy yeen bu ngeen jëlé nguur gi lan ngeen ñëk def si Banjul. wa li bi président togué gestu wayam si bir Banjul moy li ko njëkk a bir Banjul mooy soe système bi nga xamné ak drainage système bi yoy la njëkk ka consider parce que moy healthy dom adama bo déggee dom adama dunda nga nga am health bu correct nga dunda dunda bu neex sa ah, sa sa ah, fi nga xamne so so sa toilette bi fim de daw ana sa nga fim de daw yoy nga wara a njëkk a toppatoo soo président gaso, nekat la ne kat man Banjul dëgg la judo ma fi way tay suma ma president man Banjul fi la yaro fi la yaro muy persévérance bi ni onda musa ndjay kon president Baro wa Banjul la su ko defé di nga gis né bam bam dooree si yoyu yooyu gis nga né yoyu mom génn na fi mooy ah, fi toilette bi di jowé di ah, ma génnee bir Banjul gis nga gota système bi yépp défar nañ ko ya nga gis légui fum mu ni ñu ngi ni di karo Banjul yëpp understand nga so suñ jógee si tali karo bi dañu ñëw tek fa godorong suñ fa tégué godorong ba pare lighting system bi ñew muy street lights yi street lights yi ñew nak dama ne wee di gis bokkut ñun ñi ñep dañ ko gisal seen bop di nga tok kombo Banjul leer be ñew laar si combo, lolu man maa la ko wax way a duma wax dara sax dama am ben wa Banjul bu fi nekk ankul ankul suma nijaay kay kay nga musal ma tuti yow mi nga xamne ne Banjul nga kilifa Banjul nga Ah, nga wax ma liggéey bi nga xam his excellency President Adama baro mu ngi def si bir Banjul fi sa tour ak sa santa Abdoulaye de ka Banjul koren ñep xam nañ ko Banjul wa do Banjul yoro Banjul suma nijaay ah, li ñoo wax bir Banjul fi, naka nga gisee Banjul demba ak naka nga gisee Banjul tay lañ buga pour nga leeral ko adina bi askan bi yep ñu dinaa dégga uté na ni guddii ak beccik Banjul démba guddi la woon tey Banjul bëccëg la leer nañ tali yii ñun Adama Baro fu ñu jëlee ñoo ko xam jëlee nañu ci potopoto poto bi jëlee ñu ñu ci xuus génnee ñu ci xetti pax pahi yëpp dëppa nañ leen mhm. yëpp a ngi ni yaa ngi gis gis legi Banjul mo ngi leer pahi yi dëppee te dal gumbo yi sax ñu ko koo gumbo legi mhm. bul tieti et mhm. seetal sa tànka nga yu sek so degaté xam ne par la daf la orné ne pax nekku fa da nga dox di dem gumbo yi sax ñu ngey yëg li Adama baro ligey Banjul bi Banjul ñun Adama baro amuñ feyam amuñ ko suñ waxantee dega amuñ fayam ah nijaay jërëjëf jëf Ah mané dafa am ben interview bu ma doon def ak ah, Panderi euh, mbay si america am ah ma doon wedi a wéedi biir Banjul fi ne waw tali yi ni projet gi Yaya jamela. la loolu naka nga ko dundé ak naka nga ko. Oh, lu du dega du projet yu yaama Yaya Jammeh yo yo 22 years 22 <laughs> years Yaya Jammeh fi Banjul <laughs> box baa la fi defar. box waa la fi defar mm-hmm. fa la em mm-hmm. waaye Banjul fii mm-hmm. Adama Barrow moo taxaw fii paak taxaw ne man Banjul def naa fi lu ëpp 20 years problème yi Banjul kenn gënuma koo xam man dinaa make sure ne defar naa ko Banjul ñun dañ ñu neglect suñ waxee dëgg ah. dag ñu ne la yees yi yëpp président yi fi taxaw tatti 22 su fekkoon ne dañ woon baañ c'est kii amul foo yees Adama Barrow amagul foo yees am na foo yees fi am ko am ko seetal rek li mu fi liggéey xoolal soo fi mu nekk li mu fi liggéey mënuloo koo jeexal soo leen ko bëggee dox di xool lim liggéey fii mënuloo koo jeexal dëgg dëgg la seetal <laughs> man duma day politique man dega rek la day wax ci dega rek lay taxaw ku def dega ma wax ko ku defut dega ma ne lo ci dega man politique ma wedi di mom gis bokku ci fi fo hol mu ngi lo fele finishing lañ nekk ale ci chat la finishing lañ So so taalelee bor bi masala so duggé Ken Street masala area yoyu ñi jógee Kombo sa dañ ñëw di réer mm-hmm. seral amna na suma benn koto dafa gëjoon bañul mm-hmm. mu fola fële Ken Street area boobu. Mm. fàtte nga pax mu rëy ma fa nekkoon. mu ñëw ne képp xamatut fan la nekka li ko réeral mooy. Mm-hmm. pax moomu la fa gisoon. gisatu ko fa. ñoo gisatu pax gisatu dara. Mm-hmm. ah waaw ma man fan laa nekka nii. waa ndeysaan daay na ko ah Ken nga ne ah ana pax mi woon pax mi ana pax mi woon fii. daay mm-hmm. na ko nañ ko mu ne la. soo gisee foofu da ngaa waaru. mu gërëm président Baro. amuñ feyam. jërëjëf jëf jërëjëf ko fi yàlla yàggal yàlla ko fi yàlla taxawal mu taxaw fii because ñun mhm. ñun public bi mhm. ñun bénéfice dara si nguur mhm. lu dul développement yu baax understand nga environnement yi defar suñu yoon yi dimbale lañu ci lapitaan yi dimbale ñu ci school yi ñun loolu lañ ci am eh, eh, président du taxaw sa bunt kër jox la dépasse oo oh, jox la nga añ oo oh, da nga reer développement la la mun a defal te ñun Adama daal lim defagum kontaan nañ fi suñu yàlla mayoon sax mu nijaay nijaay jërëjën jëf euh, naka seen euh, euh, dure système bi nga xam ne moom la moom lañ fi doon coowoo naan gota yeeg xam nga kama yeeg ñu ngi dugg biir Banjul ndax ci sa tiggéen loolu. dara pax yëpp dëpp na. in fact sa outlet si yëpp ga ngi gas di dem. gis nga fële fi fi fi ja feeñoon noonu. fële boori Tabakoro xam nga lu ko waraloon. dañ gasa gasa gasa gasa gasa gas ba jësit yi amatuñ fuñ nekka. ñu génn a si. keroog jësit biñ gisoon. lan tax ñu gis ko fële. mooy ne. gaa yaa ngi gas pax mi. si ndox mi mun a daw di dem. jësit yooyu nag place yi ñu laaxu woon yëpp amatuñ ko ñu génn si boor boobu Adama Barrow lim ñoo defal ñun xam nañ ko sant nañ ci jërëjëf jërëjëf jërëjëf di jaay suma mujjanteeli laaj bi ah, parce que maa ngi gis ah, ñu ngi buub ay mbubit ah, foog nga ne si sa jis gis mbubit bii ñoo buub nii waxtu bii nii ndax defoon ko guddi wala ak bëccëg bii nii foog nga sa gis-gis naka nga ko dundee. waaw suñ ko defoon daal guddi moo doon moo génnoon. Mhm. su dee mun nañ ko. Mhm. because loolu. Mhm. kan sul dafa nit bagage su doy. pour loolu am moto yu doy. pour loolu moo ñu gënaloon de. waaye du fekkee ne tam ah, kan sul ñoom. mu ngoog li yàlla am doy na. waaye daal loolu moo ñu gënaloon. jërëjëf suma nijaay euh, kontaan na bu baax parce que euh, fii surtout fi ñu taxaw nii cosaan la ñu ko daan ooyee raay mbaam. Euh, foog naa cosaan boo xam ne la su Christmas jotee New Year's jot fii daf dee taakar naas te gis naa ne laasiya biñ ñëwé Allen Street di mel ak DCIA ya. kon dega, dega dega dega man suma ma gis-gis rapid development mom la président baro di def bir Banjul fu mu nekk parce que laasiya bi ma ñëwee fii foog naa fii ak suma njoboti yi waaye Allen Street ni meloon ak ni mel legi machallah dafa outé ak fizeral ba paré dama sétlu leen tamit fizeral bala New Year's bi di jot ni melon, waaye dama dan tok di laaj gaay ñi nga xamne ñoo ñoy njiti njiiti aada ak cosaan nan len wa fiseral ñu ngi ni ñu ko ngoroti yeb ñu ko liggey ndax fii balaa New Years dina baax ñu ne ma New Years di nga gis benen fiseral waaye du old fiseral bi nga gis waaye kon dafa melni rapid development moy dem bir Banjul kon dafa melni ni baro amut chaahan bir Banjul kon dafa melni yen wa Banjul ah naka ngeen gisee président Barrow kontaan ngeen si moom wala kontaanu leen si moom parce que weede gis bokkut dama bëgga muy leer. kontaan nañ si Adama Barrow bu baax a baax a baax a baax a baax lii dañ ko soxla woon. jërëjëf sedal ñu bëri taxu nañ kombo bi ko sox yoon yu bon. jërëjëf ñu bëri leen tax ñu migré gën a Banjul. nekk leet bu ñu nekk leen doon Banjul. Banjul amul benn développement. ñëpp a ngi xool Banjul. Ah, soo jógee yoon terminal. suñ mbokki Sénégal yi. Mhm. da ngaa gis ku ne cib Banjul su lay nawet la nii nawet mhm. ñu ne cib Banjul. Mhm. eh comment eh, eh, ana capital bi. Yang taxaw de di ñu ree yaangi taxaw waaw because dama daan dégg Sénégal jigi wax naan banjulak ay sondelam terminal bi yëpp a ngi poto poto waaye foguma léegi dinañ wax banjulak ay sondelam de fi mu nekk nii ah. laa ilaa suñ folee sax dañoo gis ñu ni Gambie Banjul nekkee ñu Banjul jërëjëf nekkee ñu ngi ñu Banjul jëf kay dañ leen Gambie di sax dañ ñu Gambie bii ñu Banjul ñu Banjul la jëf suma nijaay mm-hmm. man suma boutique nga ne le rental mm-hmm. service la de def nga fii la xëy rek toog di fiixlu di naan suñu ma saaf suma ataay ma toog di naan di def suma business. li yëpp amuloo ko woon. jërëjëf jërëjëf. jërëjëf suma nijaay suma nijaay jërëjën jëf ah yéen ah, àddina bi yéen a gisal seen boppa réewi Gambie yéen a gisal seen boppa loolu fii mooy ah, Fitzgerald Johnson Fitzgerald ak Allen Street macha allah gis ngeen liggéey bi ni moo demee fu mu nekk nii ah, nga jóge fa ñëw xool Allen Street waaye léegi dama ne réewi Gambia àddina bi yëpp lay waxantool ngeen man la seen xarit seen bokka Dahaba National People's Party Dahaba mu président Adama Barrow Ah, teg leen seen baaraam man la ak seen ah, télévision bi nga xam ne moo nekk Gambia télévision bi nga xam ne nay leer rek la nekkee muy Sahel Network TV bi nga xam ne mu si Gambia te doomi Gambian si ñoo ko moom teg leen seen baaraam ñu ngey ñëw jërëjëf.